ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen gërëm leen ànd beeg Alxaaji Malick TV am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam yëglekaay yi leen di ñëw benn par benn teqantal leen ko ba ngeen xam lépp loo xam ni yëglekaay yi soqi ci mille réew di réewum teraanga di Sénégal loolee lépp di am solo bu baax a baax waaye loolee balaa loolu yëglekaay yi da ngeen di def seen i abonnement ci li nga xam ne mooy TikTok bi ak YouTube bi su ngeen ko defee ba pare képp kum ci man di doon lu njëkk a ñëw ci seen kanam ñu dem ci yëglekaay bi coupe boo xam ne daanaka ñu ko séq Lionel André Messi ak ki nga xam ni moo nekk Mbappé bal bi tege ci tànkub càmmoñu Messi beneen ballon bi ñu jël ko teg ko ci tànkub ndijoorub ki nga xam ne mooy Mbappé kenn ku ci ne fa nga ma ne lan la soqil teg coupe bi ci digg bi muy wane ni kenn kum ci man di doon boo amul chance ci seen tànk yi ci la coupe du monde di soqeekoo maanaam kenn kum ci man di doon nga yóbbu ko sa dëkk tribune sport ba tey jii moom la ñëw ci loolee nga xam ni moom la yëglekaay bee indi tribune moom dafa ñëw gën ko yaatal di wax ni revanche la boo xam ni huit ans après parce que bu ñu doon xool daanaka lu yàggul dara ñoom ñaar ñii daje nan. 24 heures sport moom ñëw ci li nga xam ñëw ci li nga xam ni moo nekkoon entre entraîneur kii di Paris saint di Pochettino ba tey ci suufu yëglekaay bi am na aw làcc woo xam ni def na ko. ci li nga xam ni mooy euh, su euh, kii yu bi entraîneur u Maroc bi mu am kàdd yu bari yoo xam ne yebbi na ko ci match bi nga xam ni ñoom ñoo tey jii war nañ cee am waaye match boobee daanaka yëglekaay yi joxuñu ko benn importance ndax bu ñu xoolee xët yëpp ci digg bi xët yi ci ëpp solo ñu ngi ko jox Messi ak ki nga xam ni mooy Mbappé ndax loolee mooy final bi dëgg te it yëglekaay yi du ñu ñëw suba ci dimanche gi moo waral loolee booy ñaar tamit ñëw na ci yëglekaay bi nga xam ni favori moom lanu ko jox ci digganteem ak Balla Gaye ñooñu dañ koy jay waaye Balla Gaye doomu géejawaay bi boolewul dara ak yi wax ma nga toog ci ab ruqam di dem din ya di liggéey di xaar